wooteew journaliste parce que impunité bi am fii nag dafa ëpp man journaliste la rek liberté de la presse mun naa xëy bind lu ma neex ku ma neex ma bindal la loolu jeex na ci réew mi L'impunité est de trop. La liberté de la presse ne doit pas permettre à un journaliste de dire ce qu'il veut et d'accuser sans preuve. Ça, nous ne le permettrons plus. Allez lire le code de la presse qui fixe les interdits. moo tax. Venir dire qu'on a affecté un général, soi-disant, à cause du Premier ministre, parce qu'il était contre les rebelles, tout cela sans aucune preuve, c'est inacceptable. Qu'il le redise s'il l'ose. la bindoon nañ ko bindaat l'impôt bi ñuy wax mais yow nee nga chaque jour nga def sa à une sa sa. concernant l'impôt ils passent tout leur temps à dénoncer les auteurs de détournement alors qu'ils ne payent pas l'impôt comme il se doit c'est du détournement de deniers publics et ils doivent être poursuivis légalement si yow nga leen di fay seen salaire daal ciy dagg ne leen ci keesu